pour mu attaquer ma ñetti yoon te dañ kaa fay dañ nga wax ji dama ne woon sax damay xaar ba ñu invité ma ma bokk ak moom plateau ma ñëw jóg ñëw mbéj ko plan boobu laa préparé woon finalement ma ne li gën mooy dootul toogati ma toog parce que man su ma toogee même plateau ko père je dama koy dóor dama koy dóor bu ma sëkk sax de la part de toutes les femmes sénégalaises xam nga ba ba ba tey ba Kado Diop bu mu amee ndax du ma répété lu mu wax ndax dafay lawal affaire ñaaway bi euh, ba mhm. léegi dugguma Sen TV voilà léegi nag euh, kon tey su ma duggee il faut que ma apporter clarification loolu ndax dafa toon jigéenu Sénégal yépp waaw kon loolu donc pour euh, toutes les femmes du Sénégal, je te donne une grande gifle à distance. Ils sont les excusés, lapsus, mounol, ñak, pas comme bi, pas pour on les aimait, comme ni ngay si passion les Absolument, mais beaucoup c'est différent quoi. Donc ils ne supportent pas là, ils n'arrivent pas à gérer le, la, le caractère, quoi, le succès quoi. Ils n'arrivent pas à gérer le succès, ils sont en phase de folie quoi. Dafa dof mom. Dof Ça m'a pas pas pas pas pas pour graoul rek. Aïcha, merci beaucoup tata, merci d'être parmi nous ce <laughs> Merci. alors Pape Assane laata ñuy dem éphéméride dafa am loo xamante ni euh, junju nga ko ci njël benn mhm. euh, naqar ak tiis la kilifa euh, la ci kilifa jiine yi doom la mu nekk taaw ki nga xamante ni moom moo di cheikh al islam di maam e cheikh Ibrahima Niass mhm. donc mu nekk yaa Fatima Zahra mu nekkoon taawam bu jigéen donc